salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nga xam te yéen safoori seetaan seen site bi nga xamante ni mooy TMTV le roi du Manding mu mel ni dellusiwaat nañ fii kër xarit général Soundiata Keita muy Thierno Moulay Sow fii si Parcelles Assainies unité 19 côté boulangerie Mandela balaa ñuy tàmbali lañ koy nuyu moom kilifa gi kilifa gi nuyu nañ la waaw alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax a baax di gërëm yàlla di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu ci wàllu internet bi ak ci àdduna bi partout dans le moon di nuyu suma taalibe yëpp. di nuyu suma taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk si association Thierno Moule Sow famille yi nekk ci àdduna bi yëpp maa ngi nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu aussi suñu gan gi nga xamante ne macha allah. moom it ku baax la yàggul bu mu jógee bitim réew ñëw fi macha allah di ko nuyu di ko ziar. di nuyu waa adduna bi yëpp. di nuyu waa TMT bi le roi di Manding di la nuyu Pape Sidi. di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ak ñëpp ñu ñuy seetaan. macha allah kontaan nañu baax ci nuyu seen ku baax ñu ngi lay nuyu bu baax yow tamit. ñu ngi lay fay ku baax ki ñu ngi lay fay. Hmm. yaa ngi si jàmm rek ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla bu wér nag ñu ngi sant yàlla bu baax dolli ci li ñu ko santoon macha allah euh, Thierno moom dama ko sunu xamante yàggul noonu mais dama ko doon gis ci YouTube bi rek ci mhm. di ko di ko suivre di ko seetaan mhm. un daal ma jékki-jékki rek euh, dagg billet ñëw gis seet si ko jóge fan jóge Espagne mhm. waaw jóge euh, bi ma ñëwee seet si ko waxtaan ak moom wax dëgg yàlla li ma ko diisoon sama ci sama yaram ak ak li ma ak ak euh, li ma doon bëgg a lijjanti lépp yàlla dogal na yàlla yàlla sottal na ko. macha allah damaa déposé woon nationalité depuis deux deux mille quinze. Mhm. national nationalité ba taa génn. Mhm. waaye waaye mu defal ma ay ñaan wax dëgg yàlla. bi toogee un mois bi ma xamee loolu un mois et quelque la durée. ñu woo ma léegi tey jii laa war a départ. macha allah mhm. pour delloo Espagne. pour jël sama nationalité wax dëgg yàlla. bon te vraiment te. am na ñoo xam sax ñu déposé noonu la woon. Hmm. te def nañu def na ci def ay 4 ans et quelque kenn génn noonu ci. Hmm. man rek ci boo xoolee liste bi man sama tur rek ci nekk Matar kon boog maa ngi koy sant bu baax. te hmm. xamal ni moom vraiment lii du hasard. waaw loolu muy wax naan mooy xalif général di euh, si. loolu dama ko firndeel tey loolu moom lu wax dëgg yàlla lu ma firndeel la tey jii. nan nga def ba xam Thierno Moule. man kañ dama daan tëdd sama néeg jël di jël di def sama internet di di ko xool. Mhm. di xool ah, bon. da nga xool xew Sénégal wala da nga xool sëriñ. dama daan xool sëriñ boo xam ne dinaa dinaa am li ma bëgg ca moom. Mhm. waaw po gisuma ko ci nag. ama ci dama ko dama ca xool ba dagg gisuma ci fu nekk dem naa fa fu nekk faju dem ngaa jëflante ak ay sa yu bëree bëri du benn du ñaar ñett du ñeent du juróom mhm. yu bëree bëri ci sama wàllu yaram ak sama wàllu liggéey sama wàllu lépp rek mhm. ndax lépp loo xam ne dama ko daan dama dama daa dama ko daan liggéey dama xam fu mu jaar wax dëgg yàlla mhm. bon ak sama yaram ak sama lépp moom wax dëgg yàlla moom laa moom laa ñëw diis ko ko. Mm-hmm. ak sama sama sama avenir sama li ma bëgg yëpp. ginnaaw mm-hmm. yàlla moo ñëw diis ko ko. Mm-hmm. ndax sama doy na li ma gis li ma a ci euh, ci YouTube bi. di ko ci seetaan chaque jour doy na ma. ma ñëw diis ko ko. wax dëgg yàlla ba ma ko Ah, defuñu weer mu am lu muy mu am yu bari yoo xam ne ma ko cee wan. macha allah waaw wan na ma ci yu baree baree baree bari. Mm, mm. looloo tax nag bi ma avant may génn dëkk mam ñëw fii tàgg ko ko waxtu na sox sàngam. Mm. laay dem muy tey jii tey. waaw ci ay 23 heures et demi war ma fekk ci biir avion bi ma dellu may dellu Espagne. macha allah dinaa ñëwaat ci yow léegi kilifa gi dégg nga ku kii li mu wax léegi mooy bi mu la xamante ne léegi matul weer ak genn wàll yàlla def na ni li mu doon tawat yàlla sottal na ko ba mu war a delluwaat te heure am dellu jotum. Euh, tey jii lan ngay wax ci loolu sëñ bi waaw dañuy sant yàlla pa pap si di di gërëm yàlla bu baax baax lépp yàlla ak yonente bi la hmm. macha allah moom ba mu jóge Espagne ak léegi trente jours lay doon ndeysaan hmm. mu ñëw fii ñu nuyoonte xamante mu ne moom mu ngi jóge Espagne hmm. dafa ñëw pour ma jàppale ko ci ay ñaan ci wàllu yaramam comme nu mu expliqué lépp uh-huh. dem na ci ay sëriñ def na lu ne waaye dara yàlla boole ñu ñu defal ko ñaan ci kàttanu borom bi depuis deux mille quinze mu ngi déposé euh, mu ngi déposé Euh, nationalité mu hmm. mag ñu bari gis nga dégg nga lu mu wax liste bi turam rek moo ci génn hmm. ñëw nañu ñaanal ko yàlla dimbali ko jom moom naruloon ñibbi instant bii de waroon na fi amaat eh, yeneen ñaari weer xaw ma ñetti weer hmm. waaw mais gis nga yàlla def na lu mu doon ñaan yàlla sotti loolu dañ ko woo ne ko sa sa sa nationalité bi génn na fii ak aljuma na la fa fekk si la ma woo ci ngoon gi mu a ma ah Thierno macha allah yàlla def na lépp aajo yëpp faju na li ma hmm. bëggoon am naa ko dama bëgg a ñëw tàggu la ngir dem ma ne ko macha allah si la ñëw di ma tàggu ñuy hmm. tàggaloo ñuy tàggalantoo ma koy defal ñaan hmm. pour mu dem ndeysaan gis nga kon sant yàlla kontaan naa bu baax moom it kontaan na nii laa ko bëggee képp ku fi ñëw ñu defal la ñaan yàlla dimbali la li tax nga jóg nga gis ko nga kontaan tey dalay leer na moom bu ñibbee Espagne ah, dina indi ñeneen te macha allah am na tubaab bi bi mu waroon indi sax mais séjour dellu hmm. après day ànd ak tubaab bi ñu ah, ñëw kon gis nga ne macha allah ñaan yi am na solo hmm. te waa bitim réew en général dañuy am problème mu këyit hmm. te loolu defe naa ne du benn yoon du ñaar yoon la ñu ñaanal ay nit ñi pour ñu ubbeeku ndax jàpp nañ fi ay jinne nee nañ mun nañ mun nañ ma lijjantil mun nañ ma doxal ci wàllu këyit jinne yooyu laa ko booleel rek. kayit bi amoon depuis 2015 ba tey. Hmm. Hmm. ah jinne yooyu laa laa laa ko booleel yàlla def ne macha allah. Hmm. kayit yi génn na. damay kontaan di sant yàlla. du man yàlla ak yonente bi la rek. macha allah. Euh, ku baax yow bi ngay jotee appel bi. Ah. ñun la sa nationalité signé moo ci des. nga war a delluwaat ba njëg nga am. waaw kontaan nag ndax bi ma koy yëgee ndax lu bari dafa meloon dañ maa yéen dañ maa yéen. Euh, lu diis ci sama sama bopp bi. te xaw ma fu ma koy yenni ko waaw ba ma ko jotee nag dafa mel ni loolu dañ koo jël teggil ma ko tegal ma ko fële. muy nekk nag loo xam ne muy mbégte ci man. di mbégte ci sama sama njaboot. ndax am na loo xam ne bu boo fekkee ne da nga koo am njaboot gi yëpp lay ko lay lay couvrir. dëgg la boo ko la ko yàlla joxee nag. kooku lu bari bari bari dina dina dina dina dina tegg ko. moo tax nag loolu daal vraiment. mu dugg sama xol kontaan ma ne du ma génn dëkk bi mukk te dellu ma ci Thierno mi nga xam ne moo defoon loolu macha allah ba tàgg ko ñu tàggatoo mu ñaanal ma hmm. ma ma ma a dem bu ma doon tardé di jëndaat beneen billet yi sax dinaa tardé jëndaat beneen billet ndax ba ma il faut ma tàggatoo moom doog a dem macha allah ndax moom wóor xam naa ni moom jàpp na ci incha yàlla ak yonent ba moom jàpp na ci kon loolu daal moo ma indi ak kontaante nag hmm. kontaante bu wér nag hmm. boo xam waaw avec contenté boo xam ne amul àpp. Hmm. looloo tax nag mën naa ko exprimer aussi ci ci ah, espagnol. waaw ñi nga xam ne ñooy ñi nasaraan yi. waaw dégg ah, dégg euh, dégg ko. ba mm-hmm. sama xarit yi nga xam ne noonu ñoo waroon a ñëw mm-hmm. xam ne itam bu ñu ñëwee itam ci loolu lañuy lii lii lañ fi fekk ak seen ndax booy indi nit foo ko foo xam ne xamu ko mm. il faut nga indi euh, il faut nga wan ko preuve waaw wax ko preuve mm. lakk ko ci lakk ba mu dégg mm-hmm. pour mu comprendre moom bu ñëwee li mu fiy fekk voilà looloo tax nag ma ngeen may ma tuuti rek ma explique ko en espagnol comme ça ñoom moom ñoom danañ comprendre ah, moom même fi fekkee danañ comprendre vale mira mm. buenas buenas noches que yo estoy en Mokhtar, yo vivo en Alicante hace un poco de año uh -huh. y yo venía en España, eh, en Senegal, para uh -huh. ver una, una, un brujo, por ejemplo, como uh -huh. dice un brujo, que yo tenía cosas a mi cuerpo, de mi salud y eh, todo esto. Y eh, cuando hablo con él, con, con él él me dice me, me, dijiste que cuando, cuando ponemos de acuerdo, todo lo que tienes de malo dentro de tuyo, yo voy a sacarlo. Lo malo, todo lo que yo voy a sacarlo. ya como yo pasa muchos muchos eh, haciendo cosas pagando dinero aquí allá y nunca no solucionado pero yo lo conozco casi un mes solamente un mes todo lo que me lo todo está bien ni tenía mis papeles, a, a, me tenían mis papeles ahí uh -huh. hace tiempo que yo pido la nacionalidad, no lo puedo conseguir. Uh -huh. eh, él me decía que cuando hace, hacemos esto, seguramente lo vas a tener. Uh -huh. Eh, esto, este ha durado, ha durado, por lo menos un mes, solamente un mes. Uh todo está solucionado. Entonces yo voy a decir que antes de irme en España otra vez, mm. yo, yo, voy volver aquí para decirle que me voy. Uh mis gente, eh, mis amigos que está allí, que quiere venir aquí en España, que, quiere venir aquí o sea, en eh, Senegal, hay que venir. yo vi a venir con mis amigos, mis compañeros, toda la gente que le pasa algo, cosa de brujo o mm. cosa de mala suerte, trabajo, lo que sea, de los, de lo que sea, puede venir aquí a verlo que te, te, te lo va a solucionar. Entonces, por esto ya lo hablo en español que la gente que no, entiende Olof. Por mm. esto yo estoy hablando en español. Mm. Vale, muchas gracias. ¿eh? Adiós, gracias. jërëjëf euh, vraiment xam naa ne gracias mooy mooy jërë jërëjëf loolu leer na nañ euh, kilifa gi dégg nga kii li mu wax lépp dañ lay bàyyi yow tamit nga tàggatoo xool loo ci teg rek soo ko yàlla ñu tëj bu beneen émission jërëjëf. waaw da nga may laaj ci la. <laughs> ah bi nag déggul man nag xam naa ne yow dégg nga ma waaye déggu ma man yow am nga jinne yu lay traduire waxal rek olof rek <laughs> dimbali ma rek. waaw naan euh, comme man tamit li ma ci xam. Sarga Foyra. waaw ah, Sarga Foyra génn Sarga Foyra Foyra Jinne. waaw ah, Jinne yi leen di génn waaw comme suma gan yi espagnol yi fi jógee woon. gis ngeen ñoom Mariama. Mm-hmm. ñoom Baye Saliou. Mm-hmm. Ibrahim. Mm-hmm. ñoom Ismaïla. Ah, gis ngeen ñoom ñëpp macha allah. di kontaan bu baax a baax ci moom. Euh, vraiment lii lu sedd xol la. góor la garmi la aussi nit ñaanal la nga gis. nga ne duma dem tànk tàggoowuma ak moom. waaw macha allah loolu tamit yokkute lay doona. loolu tamit secret la nit ñaanal la. Uh-huh. nga ñëw gërëm ko aussi. remercier ko mais loolu day kontaan ci yow lu mu mën ci yow da koy yokk bu ko defee yow nga jëm ci kanam loolu moom loolu tamit lu baax la quoi xoola jàkka jaa ngi noddu sant yàlla rek nga ne lii maanaam sant ak kontaan nañ bu baax a baax mm. euh, euh, sant yàlla rek macha macha allah hmm. jërëjëf. jërëjëf vraiment kontaan nañ euh, témoignage bi nga def am na solo la ñu ngi kontaan ci xarit général bi nga xamante ne lu xew mu daw woo ñu ñëw euh, fekk ko teewe ko jël ko te bu ñu ko joxee nit ñi ñu seetaan ko seen xol seddu lool ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje beneen ci beneen émission jërë ngeen jëf ci fii ci TM TV le roi du Manding jërëjëf. jërëjëf.